légèreté ñaari sens la mën a am bu xasee ba dugg ci cadre légèreté dangereuse nag sàggane sa bopp lay tudd te mooy lépp lu lay gaañ yaa nga ca bis bu nekk lépp lu lay yaa nga ca bis bu nekk lépp luy tardeel nit wala wala loo xam ne dafay dafay ñàkk njëriñ nit dafay dugg ci cadre légèreté boobu. nañu wattu jikko yu sew yi. jikko yu sew dina dinañu fekk li jikko yu mag yi tabax ba noppi ñu ñu ñu màbb lépp moo tax léegi ñu ne la diw baax na ah, sa njaboot bi baax na sa soxna si baax na sa xarit bi baax na mais fexeel bët rey sa bopp ci moom mu bañ topp jikko yu sew yi waaw parce bu koy màbb moom du ko yëg waaw day jàpp ni rekk def na lii def na lii amal na lii or que am na bu ko topp lu mu amal rekk mu màbb

لإحنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لولو لنلا شرور الأنفس لنلا bari na ko xamni boko ko firi lo won ak mu daan moy dangar dangar dangaru bakkan bu matti jikko rek mu jur sayyatul amal ni ngay ragale jàng ndax dangar ji ba bu la màttee ñu wut kuy lugg yow itam sa bakkan ak dangaram bu màttee sa jikko fokk ñu wut ku la lugg waaye sànq ci ngoon lay déglu benn woykat mu wax lu ama am solo ci façon bu rafet waaye mu ne yàlla dama la war a baalu mu ne ndax yéegal nga ma ci sommet yi gën a kawe ci yi nga am yóbbu nga ma ci àdd àjjana yi gën a neex dunduloo nga ma expérience expérience yi dàq ci yi nga mën a dunduloo euh, jàmm mu ne waaye dama dem ba yëg ni ak fi nga ma jaarale foofu yëpp li ma fay def yëpp nekk say seytaan ak may foo ak ay loxoom seytaan may fooy ak ay loxoom kon nak mang Je lay jéggalu ci ngëlëmte gi ma gëlëm ba lolou di ma war a mën ci sa biir ëtt kon nak maa ngi lay ñaan ci sa mbax ak sa kàttan nga jël ma neexal ma ci sa leer ba ma ci ba jeex tak way ci barke leer gogo lay ñaan mo moy wax de mang ngi lay ñaan yalla bu mu jóg ci dila la yàlla bu ma jóg ci di la mooy ndax ma mën a dëkk ci di la baalu <laughs> ndax bànneex du dàq ma wër la ma ma war a am occasion taxaw sa kanam taxaw sa kanam wannale duma dara dama gis ni waxin boobu ni mu résumé thème bi C'est extraordinaire. moo tax mag ñi di bëgg sax bala laa mat ñu jàngal la lugu bi ba noppi mooy waral ñu tegal laa loo la ba siin mi waaye baasin mi bu xale bi bokkul ak baasin mi bu mag bi ku ci nekk ak sa baasin xale bi xarab lañu bëgg mu xam ko moo tax ñu ni ko baasin mi waaye mag bi bi dem ba tollu ci nekk borom kër ñépp yaakaar ko malaaka fekk ko fa ni ko baa siin mi mara mu ni jàngoon naa ko de ñu ni bu jëkk ba boobu baa nekkul ci xutba yi mu ni waaw kon mooy lan ñu ni ko baa bi baa bi mooy bukkaa ut tawwaabiin من عقلا ينكسين بي ميسهو الغافلين ينكو عقبا منكمين بي مي مغفرة المذنبين nga bobu bassine simple bu ka ou tawabin baa bi baa bi lu muy wut si mooy jooy yi kiy rëccu di jooy baa bi fexe ba feral sa rangooñ ndax dootoo def looy rëccu du dëkk siin bi sahwul gaafiliin ñi sàggan ba tax ñu wuute seen léppi boroom siin bi ñëw fexe ba dox sa digganteeg càggante googu ba dara dootul dox sa digganteeg jox sa boroom li mu moom ci yow miim bi dem ci magfiratul mudnibin te mooy agenda bi yàlla yor te kum dul téyel bàkkaar mu bind ci sa tur miim bi fexe ba sa tur dugg ca ndax am nga jom gu day ni dootoo bàkkaar parce que leen na am yàlla dafay baale waaye boo ko wanee dafa boo ko boo ko wanee ni da ñàkk jom moo la ni dafa am fayda mais du weddi boppam comme nee na boo ma baaloo ma baal wax ji mooy fóot ba nga def fexeel ba baalu lu toll noonu. li benn woykat mës woy mu frappé ma lool mu ne damay sama bopp mu ne ndax damay fàttaliku bés ma def jëf ju ma niruwul mu ne waaye dama koy nanguwul sama bopp lan moo tax. nit ko gis dana am moment wu lendemam maw gemam maw ngelamam. Konak kon nak dama koy nangu waye fexé ba ëllëgit it ngëlëm dotuma ci dal gis na essentiellement lii rek la lii rek la nga mën a fexe ba lu mbir bi doy waar doy waar nangul toog ak sa bopp wax ak sa bopp خلال سبب دفع بری کنین مانگی مسلو چی شیپانه دفع که مم یگل نی مم موی شیپانه باپم نخ شیپانه انتان تان که تل منلول کنه دارم مع ان كيد الشيطان كان ضعيفا شيطان بمن اللي نترك بكنا فجار ولا عدنا جارف ولا خالص جارف ولا جيجين جارفة نين تيني lay utiliser kenn ku ne dina la xol ba xam ban moy sa côté faible mu jëm fofa pour yàq la moo tax wa ma nafsi ba inna an nafsa la amaratun bis-su li mu wax xam na xam ne ni lu ko dal rek bakkanam ko ko teg